moo nu bind wasabi wal amlaak yaa samtal minan nabatani asabtaani yalasan yaa man law minin saa maali tasan arabatil ida biman rabbi la ñëw di sàpp bi xayri turi waa nga leeralal ñun leeral talibe yi leeral bopp jullit yëpp ñi nga xam ne nii noonu la ñuy fas yéene defe màggal gi ak liñ ci séntu leeralal ñu ci bés bi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين نجلا جنيه بقي طالبي جنيه بقي جديد يب جنيه بقي ريون يب بفسيني جلسي فيه di dolli ay leeral ci bis bi nga xam ne bis bu màgg la ci noonu di bisu màggalu Touba xam ngeen ni sëriñ bi ci boppam moo ko yëgleel boppam wax ca loo xam ne lenn luñ cay dolli ci amut leer na nañ màggal nag li mu tekki dëgg-dëgg moo di fàttaliku goo xam ne ci jaamu yàlla lépp koy def bañ a nekk fàttaliku goo xam ne toog mooy yàlla man dama ko jëlale kon fàttaliku goo xam ne dees koy defee ci sunna ak jaamu yàlla ak ñaan loolu mooy li tudd màggal moo tax bis bi ñu tudd ko bisu màggal ànd ak sant gi nga xam ne moom la borom wax ne bisu sant la li ñu jëkk a def nag mooy xam ne kañ mooy bisu màggal bi ndax mel na ne am na ñu mu desee leer wala boog bu ci ñàkk leer amu ci dégg guñu bu wér ñu wax ne bi sangam la ñu ngi fas yéene doon ren insha allah alxames di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di diggu gàmm war a taseet ba tey alxames di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut yi nga xam ne mooy weeru tubaab kon bis bi nga xam ne mooy alxames bis bi bépp mooy bisu màggal bi dañu koy xëyee yendoo ko fanaane ko bu asamaan seetee insha allah di ajjuma di bis bi nga xam ne ci la ñuy yeewi gan ñi bisub yeewi gan ñi ñu it moo dellu doonati bis bi nga xam ne ndaw yi bàyyi ko ci nguuru Sénégal ci la ñuy dikk ñoom it di sargal si sëriñ bi ak mboolem ko bokk ci yoonu murit di kilifa di taalibe ñu dikk di la ci sargal si bis boobu kon ajjuma lay doon defe naa war a nekk fanweeri fan ci weeru ut bi nga xam ne mooy weeru tubaab màggal nag doon na loo xam ne sëriñ bi leeral na ko yaakaar naa ne ci biir leeral googu mu ko leeral itam nga xam ne wax na ne sëriñ bi di ko dale ci biir nekkee Gabon ba ñibbi si am fi ay weer yu néew ñu yóbbu ko Mauritanie mu nekk fa lam fa nekk dikk Thiéyène ci Jolof jóge fa dellu si njaareem diggante boobu bés bis bu masaa dikk bu waxtu woowu ñëwee tiis yi ak natt bi day yeesaat ba jëmm jëmm bis ci njaareem ni mu ko waxee woon moo xam le ne dañ ko ne nag tiis bi jeex na jël pay gi moo ci def ca la daal di wooyee nag ña nga xam ne ñoom la war a waxal yëgal leen ko santaane it ñu jottali ko mboolem taalibe yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ko santoon ñi di ko yëgle it muy sëriñ Hamsatu Jaxate mi nga xam ne moom la defoon muy ki nga xam ne yu bareem ci mbiri biir moom la ko féetali woon sëriñ Hamsatu Jaxate moom it ku ne xam na li mu doon ci sëriñ bi ak bokkam yi nga xam ne ñoo fi nekkandoon ak moom am na lu doy ci man ndax yaakaar naa ne sëriñ Saalihu ku ko jëkk joxe lu bokk ci màggalu Touba gannaaw bu ko sëriñ Touba diglee bu fekkee am na yu bëri ngir lii ma leen di bëgg a nettali booba ñu ngi nekk Touba di jàng sëriñ bi woolu sëriñ Xamsatu Jaxate mu ñëw ba njaareem mu ne ko bokk na ci yem ko wax yéen ba mu ko waxee yem ko doyoon bàggal mu tasanteeg bis boobu it ñëw mu ne ko kon bis bii sama bis la boo xam ne wax ko ni mu demee ne ko it nañ ko yëgal ñëpp kenn ku ci ne it na xam ne lu mu ci def ci cant te yàlla tax day gën a yokku te ka ko defut dana ko ñee ci moom mi ko def ba nga xamee ne sëriñ xam sutu jógee na njaareem dikk dellu si waat Touba dal di dajale njabootu sëriñ bi gi mu yoroon ak ñam ko war a wax ñëpp yëgal leen ne jóge na ci sëriñ Touba am na sërite bu neex bu mu indiwaale mooy xamal na ko ne ko bis sàngam fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar bis la boo xam ne mboolem lu mu doon sàkku ci yàlla ci la ko am digle na it kenn ku ne di ko fàttaliku di ci sant di ci jëf la mu man bakkat doom daanoo te fekk sëriñ Saliou nekk fa daf koo wax ne ko man de am naa benn mbur mbur mooy xar mu ndaw boo xam ne dama bëgg kon def ko ci bis boobu sëriñ Xamsatu ne ko yow nag day yaa ci def li sabay bëgg dëgg ku ko ci def kon loolu lépp ak cant la ci jëmm ji nga xam ne moo fas yéene taxawu magal gi ren loolee itam bi loo xam ne dafa war a law sant na taalibe yëpp it lañ ca war a def kenn ku ne it fan ca war a dalee ba fan ca war a yem danga ko xam gannaaw loolu yesoo it kon dafa mel ne màggal gi moom tàmbali na ci bis bi sëriñ waxee yëgle màggal tàmbali na ci taalibe yëpp tàmbali na ci kër gi tàmbali ci taalibe yi tàmbali ci wëllëri yi tàmbali ci mboolem koo xam ne sëb yëngu aju na ci màggal waaye mënees naa wax ne bis ni tey jii it la màggal gi tàmbali ci wàllu nguuru Sénégal ndax ci la fobe mboolem béréb yi nga xam ne batali xeetu Sénégal mooy seen liggéey ci la leen jële seeni jiit ya nga xam ne ñoo ko yor ci wàllu réew mi ñëpp ñu yebal leen ñu dikk kenn ku ci nekk wax li nga tatoo ci bis boobu ak la ci fas yéene ak la nga ci man muy wax joo xam ne it nañu ko waxee rek ni la nekk ci ñoom ba tax na sëriñ bi kàddu yi wax suufe na waaye def ne kon nag loolu mu di wax loolu ngeen ci wax noo ngi koy séentu ci yéen ni ngeen ko wax te leen ñu tëgg rek loolu la wax kon loolu gàtt na waaye ëmb na ñëpp su fekkee li ñu def da ci am xam-xam am ci yéene loo def du wóor ko ak rafet ci moom dor bu ko da nga ko laajee ba tax na ni amuñu lenn lu ñuy mat bi wala lu ñuy ten lu yéen ba xam ne ko def ci biir def te muy fay yaayoo ci fan ci bi si bu dund jort na ne lees na def nga def lu ci am bis ko nag ngeen dugg ak génn ci ak jëm te def ko nga xam ne ñu ko sëriñ tuuti ba yool ak ba xam ak xéwal yi nga xam ne moom la ci bëgg ci mën kaa jot ci nga xam ne moo taxoon bu ko sant mën naa ni dala def li ko dalee ci waxtay ak taw yoon bi ak ak bi ak rajo dellu bi ak taw yoon bi ak dellu ba ak dem ci yërma ne parce que jël ko ñent la xam ne kon nag may dara kon lay bëkkal bi may dara ci wala ci am taw yàlla wata ñu ko ñu ñu ko ñu ko jëm ci xalé kon ñu daal ci ko wax ci wàllu kilifa yi nekk ci biir yoonu mu rek bis bi nga xam ne mooy bisu yooyuko bi ñoom ci fekk ñu jublu koo fekk si loola moom la cay wàllu nguur gi xam ne ñoom tànn kon ñu ci ñi moom seen bopp tey ay kilifa tey dikk ci seen dikkiinu bopp ñooñu it ñu ngi leen di xamal ne ak kilifa yi doon ay kilifa ci bokk yi ak taalibe yi ci yoonu murid bis boobu koo ci xam ne sa jot may na la nga dikk ci yëpp li sëriñ bi ci tàggatoo bi koy it loola nañu xam ne ñu ngi la ciy bàyyi xel woote bi nga xam ne moom la ñu def nii it ak yëgle yi dafa wuutu këyit wu ñu waroon a bind tuyaaba ak ngëneel ak xéewal yi nga xam ne moom la ñu ci bëggali nu mën caa jot jotin wa nga xam ne moo taxoon mujj ñu ko sant noonu ñaan it yàlla def ci jàmm ci li ko dalee ci wàccaay yi ak kaw yoon wi di dikk ak agsi bi ak waaju dellu bi ak kaw yoon wi ak delluwaat ga ba àgg ak jàmm lépp di yërmande ak ndimbal ak xéewal bi jeexi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag màggal gi door na ci wàllu sëriñ bi taalibe yi màggal gi door na ci wàllu nguur gi ak ni ñuy taxawoo yal na wàccaay yëpp àgg ni ñu ko yéene yal na ci yàlla def ndimbal ak yërmande ci bas ci sëriñ Tuuba ba kenn ku ne jëriñu ci ni nga xam ne ni nga ci war a jëriñoo waxoon nañu daaw itam ne képp koo xam ne kilifa nga ci wàllu àddina ci wàllu yeneen tarixa ci wàllu kilifa yi nekk ci biir yoonu murit bis bi nga xam ne mooy bisu yeewiku bi ñoom ci fekk ñu jublu koo fekk si loola moom la cay wàllu nguur gi xam ne ñoom ñu tànn kon ñu ci ñi moom seen bopp tey ay kilifa tey dikk ci seen digginu bopp ñooñu ñu ngi leen di xamal ne ak kilifa yi doon ay kilifa ci bokk yi ak taalibe yi ci yoonu murit bis boobu koo ci xam ne sa jot may na la nga dikk yëpp li sëriñ bi ci tàggatoo bi koy loola nañu xam ne ñu ngi la ciy bàyyi xel woote bi nga xam ne moom la ñu def nii ak yëgle ji dafa wóotu këyit wu ñu waroon a bind di def di ko jox ndaw muy dem ci kenn ku ne ñu di ko ko jox bis baa ngi nii di bisu ñëpp màggal daal ni ma ko mën a misaale nii la julli la guñ taxawal julli nag dëttul kenn te génnul ci kenn ndax julli buñ koy def dañuy jëkk a nodd ñëpp xam ne nodd nañu ngir julli ñu toog ba yàgg daal di liqaam loolu it ba tey weneen wàccaay la ku ne xam ne julli gi ñu ngi koy bëgg a taxawal bu ñu liqaamee nag soog a kabar di julli te it desul ndax ñeenti rakk la wala ñaar wala ñett sàppe si jëkk si nag dara du ci indi nit lu dul teel a ñëw waaye amut luñ ci yeeyale kenn sàppe si mujj itam dara du ci yóbbu nit xaj na lu dul ngant sax nga lekk ca waaye du ko ñu luñ yeeyale kenn kon nag màggalu Tuuba nodd nañ ko ci kanam tuuti danañu ko liqaam danañu ko taxawal julli noo ngi ñaan ku ci jubloo ànd loolee nga xam ne kenn jiituwula ci kenn ëppalewula ci gannaaw loolu yëpp am na lu ñu bëgg a leeral ndax mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo yor tasukaayu xibaar yi sàkk woon nañu yaar yi benn bi moo di ñu dal di tàmbalee door waxtaan wëlbati xel yi ak xol yi ak xalaat yi jëm ci bis boobu di màggal tàmbali cee def ay waxtaan loolu bu soobee yàlla bala ñu fee bàyyi ko danañu leen jox tur yi ñi nga xam ne ñoom lañ leen booleel ngir ren ñu defal leen woo waxtaan sàkk na ñu itam am ay mbir yu bari yoo xam ne buñ ci ay kaddu mënoon a tàbbi ñu def ko ci loolu it noo ngi seet danañu jéem a seet ñu ñu leen booleel ci googu fànn ci xeeti artu ci xeeti nangam nangam yooyu du ñàkk ñu seet ñoo xam ne danañ leen ci booleel ñoom itam ñu seq ko ñoom yéen ca war a wax ak yéen ca war a leeral yëpp ñu leeral ko kon loolu mooy li nga xam ne moo doonoon waxtaan bi ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu